mbooleem ay mondam waaye mooy buur bi nga xam ne moo taaral asamaan ci ay biddiw ak weer mooy buur bi nga xam ne moo leeral jamono mooy buur bi nga xam ne moo feeñal suñu yonent bi di ab soppeem mu gënal ko ci mbooleem ay bi mbooleem nit ñi nga xam ne ñu wéy lañ ak nit ñi ñëw ñoom ñëpp yonent yàlla Muhammad leen gën yàlla julli ak sëlmal nekk ci moom moo fi ñooñu ma gis saxaabaam ya nga xam ne ay borom yu dëgër lay lañ waaye ay borom yu gis-gis yu kawe lañ mbokk yi li ñu bëgg fàttalante mooy rek la ñu baaxoo woon abadan di ko fàttalante ci suñu diggante weer wi ñu nekk weeru muharram la ñu ngi ci ñu ngi ko tudd tam xarit muy ngeel njëlbeenu weer ci atum jullit nañ faral di wax lu bari ne saa su am ab duggee kenn ku nekk ci ñun na jàpp ne fukki weer ak ñaar moo manki ci ab dundam nit ki juddu limalu guñ ko ay weer ba di ko limal ay at koku moy ci gudd fan waye waxtu woo xamee ne dox di dem yaangi gëna gën sa bammel di gëna a sa bar sax di gëna a dé kon yow mi dund yaangi ngi ci gudd fan waye yaangi jëm ci gattu fan ndax say fa nga ngi jeex te bis yi lay rom ak weer yi lay rom ak at yi lay rom bis bu la ci rom du wat dem na weer bu la ci romb dem na jóge na ci sa dund te dootu dellusiwaat at yi at mu la ci romb yi jóge na ci sa dund te dootu dellusiwaat kon yaa ngi jóge ci gudd fan jëm ci gàtt fan koo xam ne nag sa dund da ngay bis bu set ñu di cee jël di yóbbu di cee jël di yóbbu di cee jël di yóbbu waxtu wu nekk muy gën di manqué nga xam ne ci jeex la jëm war ngaa góorgóorlu lool ci farlu ngir waajal tukki bi nga war a tukki ndax mbokk yi barsàq tukki la bo xamne tuki tukki bu yag la tukki bu sori la tukki bu wéet la tukki bu tis la tukki bu met la te kenn ku ci nek kat sa tukki bobé faw da nga fay soxla ab yobbal bo yobulo bo xamne mom ngay mëna a lola tax do ma wara sonni ay ndax waxtu yi la yalla di jox luñ la abal rek la waxtu yi dañ la ko abal rek waxtu wu ci nekk nag ginnaaw dañ la ko abal te ki la ko abaloon daf koy jël war ngaa fexe ba waxtu wu ñëw bu nekk nga jéem koo jóor ba mu fees dell ak yiw bu waxtu di dem yóbbale la ko moo tax doomu adama amul ci dundam lu war a sànq doomu adama ak dundam dafa gàtt lépp ci jaamu yàlla rek la ko war a jeexal ak wuti yiw mbokki doomu adama ku war a sàmm waxtoom la te war koo fonk شاون خاتم نانا نعم. ثم المراعاة حقوق الوقت من جملة الآداب عند الثبت شاون خاتم نانا دفا بوك تي تيغن جوليت بي موي سامون تك اي وقتوم كي نكو يونت يالا محمد جانغالي وقتو دوغ غا خامني سي دوند لا بوك تا بوغي نوت ديل سي وات nga fexé bu waxtu wa di dem yobale la mbokk suñ borom xam na ne suñuy bàmmeel yiw du fa doy xam na ni bis pénc bu ñu jàkkaarloog moom war ñoo at yiw du fa doy loola moo tax mu yéene ñu yiw wu bari lool tax mu sàkkal ñu ay jaamu yàlla yoo xam ne du doon ay farata waaye ay naafile lay doon ak i sunna ngir nit ki di ko dundale ay waxtoom ndax mbokk yi waxtu woo dundalul ci lu baax rek da koo sànq wépp waxtu wu doomu aadama am te dundalul waxtu woo ci lu baax rek waxtu woo da koo sànq moo tax xeeti naafile yii nga xam ne moom lañ la faggul ngir nga di ko naafile waxtu wi nag ñu faggul la ko ngir nga di ko wuy ngir di ko wuti tiyaaw waa akadu وأكد النخل بعيد المغرب sitan wisnatayni an xayri nadmi cheikhul xadim nee na am yonent yàlla muhammad la ko suñu borom jox mu ne saa soo jullee timis ba noppi na nga julli juróom benn rakka bu fekkee ne sa jot may na la ko ak sa féex ak sa yaatu boo ko mënut lu mu gàtt gàtt na nga julli ñaari rakka tofal ko ci timis ci waaye boo mën a juróom benn nag moo gën ndax lu baax nu mu gën a baree rek mu ngi gën a sakkan bokk na ci li ñu suñ borom jox ngir ñu di ko la suñuy wax Seexul Xadim nee na wa xabla zuhrin arbaan wa baadaha wa xabla asrin arbaan la baadaha nee na bala ngaa julli tisbaar jullil ñeenti rakka ngir nga teeroo ko waxtu wi nga xam ne moo war a tàbbi boo julee tisbaar fa noppi julli ñeenti rakkaam ngir nga gungee ko waxtu wi nga xam ne moom nga doon julli bala ngaa julli takkusaan na nga julli ñeenti rakkaam ngir teeroo ko waxtu wi nga xam ne moom nga war a julli te muy takkusaan ji booba wa qabla asrin arbaan waaye nag laa ba'da ginnaaw takkusaan moom kenn du ci julli ndax bu ñu xasee sëlmal takkusaan dañuy tere ku ci naafila ba bàjjant bi di sox mbokk yi naafile yi nga xam ne moom la ñu yonent yàlla Muhammad indil muy ay sunna di ay julli nañu xam ne boo léegi yomal xiyaam rasulullahi nee na jëfi jaam bi jëf dañ koy njëkk a peeseel ci ay balance yiwam mooy ay julleem nee na bu ñu peesee jullee bu jullee baaxee yeneen jëf yi ca yëpp ko xool waaye bu ñu peesee jullee bu jullee baaxut yeneen jëf yëpp dañ koy càmbar motax yonent yalla muhammad ne bala ngeen ak julli timis bu ngeen julli timis ba noppi na ngeen julli ñeen juroom ben rakka wala ngeen julli ñaar gën ga gat bu ngeen jullee tus bala ngeen a julli tisbaar na ngeen julli ñeen bu ngeen julli takkusaan ba noppi na ngeen julli ñeen bu ngeen julli tisbaar ba noppi na ngeen julli ñeen bala nga julli takkusaan nga julli ñeen ndax yonent yalla muhammad nee na yoy ngay naafila bo legge bu ñu càmbaree julli gi lu ca manki dañ nan nañ dem seeti naafila ya su ko defé ñu jël ci naafila ya ko say farata moo tax ay naafila mat a bari ndax ëllëg kat bu ñu lay peesal say jëf lu ca manqué rek dañuy dem seet ci naafila waaw bu fekkee ne jaam nga boo xam ne daawoo naafila da nga daa yem ci say farata rek waaw bu farata yi manqué fooy jëlee lu ko mottali Cheikhul Xadim teg ne wa hakada baada al ishaai wastahsanu tahiyatal masjidi baaban bayyanu baa an bayyanu Cheikhul Xadim nee bokk na ci naafile yi nga xam ne dañ ko jox jaam bi ngir mu di ko dolle ko aw yiw muy ginnaaw geere yonent yàlla muhammad baaxoo woon na di ci naafile fukki rakka ak ñaar ku ko mën nga di ko def bala ngaa tëdd nitu yàlla ngi nii koo xam ne ma nga ca barsàq moromu waliyoom gis ko boo demee Cheikhul Khadim moo koy nettali ci Masalikul Jinaan bi ko moromu waliyoom gisoon laaj ko ne ko sa xam-xam bu bari bi nga amoon njàngale mu bari mi nga daa jàngale tasaare xam-xam gi nga daa tasaare xam-xam yeete gi nga daa yeete laabire gi nga daa laabire ci xam-xam bi ñu la mayoon ana bi nga demee lan la sa borom faye mu ne ko day mboole mboolem yiw bu bari yu ma doon def muy julli yaag koor yaag sarax ya ma doon def ak njàngale mu bari ma ma doon jàngale ci xam-xam bi ma amoon lépp jeex na fi mu ne nii daal li ma dese mooy rakka yi nga xam ne maa ngi ko daa julli ci njëli nga xam ne yiw yëpp jeex na waaye rakka yooyee moom day des ba abadan moo tax toog ba njël ñu nodd nodd bu njëkk nga jóg fëgg say tànk tàggoog sa lal julli ay rakka mbokk yi rakka yooyee bokk na ci rakkaa yi nga xam ne day wéttali nit ki ci biir bàmmeelam ba kere muy yow ci bis penc ba moo tax lu mat a sonne la waaye nag wastaxsanu tahiyatan lil masjidi ba an bayyanu Cheikhul Khadim nee na bokk na ci yi nga xam ne dañ koy sàkku ci nit ki ngir mu di ko dolli ñu koy yiw muy mu tàbbee ci biir jàkk na nuyoo jàkk ja ñaari rakkaa bala moo toog ndax yonent yàlla Muhammad nee na ida daxala ahadukumul masjida fala soo xata yu salli rakaatayni bu kenn ci yéen tàbbee ci biir jàkk bala moo toog na nuyoo jàkka ji ñaari rakka waxaan na ci beneen hadis ne li kulli shay'in tahiyatun wa tahiyatul masjid rakaatan nee na lu mu doon lu nekk rek am na nuyoo waaye nuyoo jàkk rek nee na ñaari rakka la kon bokk na ci yiw yi nga xam ne nit ki def caa war a farlu ngir fàggoo ko lu yóbbu ca biir bàmmeelam mooy bu duggee ci biir jàkk bala moo toog bu nuyoo jàkk ja bu fekkee ne waxtu woo waxtu naafila la bokk na ca wa rahabu fi rakaatayni lil fajar fa laysa tuqda xayruha xayruha fi mastahar Seexul Xadim nee na bokk na ci yi nga xam ne nit ki war na cee farlu ngir wute ko yiwum dawal ci bàmmeelam mooy ñaari rakaa fajar mooy ñaari rakka yooyu nga xam ne bala ngaa julli suba moom ngay julli ginaaw bu ñu noddee fajar ba noppi mbokk yi ñaari rakka yooyu yeneen yàlla Muhammad nee na rakkaatay fajr xayrun min ad-dunya wa ma fii fiha maanaam li nekk ci kaw suuf lépp boo ko moomoon nga jaay ko muy alal nga def ko ci yoonu yàlla lañu la cay fay ci yiw la muy bari bari tiyaabo yi ñaari rakkay fajaru ko ëpp mbaa dégg ngeen wax yi bokk yi rakaatal rakaatal fajir xayrun min addunya wa ma fiha rasulullahi nee na ñaari rakkay fajar boo moomoon di ci kaw suuf lépp nga def ko ci yoonu yàlla lañu ñu la cay fay ci tiyaabo ñaari rakkay fajar moo ko ëpp tiyaabo seetal li moo tax nee na fa lay sa toq daa xayruhu fi mastahar Cheikhul Xadim nee na mboolem naafile yi amul benn naafile bu ñuy fay waaye ñaar rakka fajar moom dañ koy fay bu fekkee ne yàlla dogal na nga yow bi nga yow fekk waxtu wi jàll ñu julli suba ba noppi teere nañ la nga naafile ndax bu ñu xasee julli suba ba noppi kenn waru tudd naafila ba keroog jant bi di fenk waaye nag julli fajar googu la rawoon moom boo jullee sa suba ba noppi bu jant bi fenkee ba keroog zawal bi jot mooy tusbaar ñuy noddu tusbaar diggante boobu mën nga fay fay fajar mboolem naafile yëpp ñaari rakka fajar rek lañ ci fay waaye amul beneen nafila boo xam ne bu waxtu weesoo danañ ko ngir lan yiw wi yonente bi sallallahu alayhi wa diggee ci ñaari rakka fajar ne moo gën àdduna ak li ci biiram mbokk yi suñ dund yi bu ñu ko xasee ñàkk rek jeex na moo tax war nañ ci góorgóorlu bu baax ci di fàggu aw yiw wu ñu dawal ci suñuy bàmmeel tey moytu di sànq suñuy dund ci loo xam ne day wowal suñuy xol Cheikhul Xadim nee na wa aqbalu asyaani maa qassaahu taxsiyatan wa taatan ansaahu Cheikhul Xadim nee na mooy yàlla gi yées ci mboolem mooy yàlla yi mooy mooy yàlla goo xam ne bu ko nit ki dee def day wowal xolam ba noppi di ko fàttaloo jaamu yàlla di ko fàttaloo yàlla ndax mbokk yi mooy yàlla yi yées ci mooy yàlla yi mooy mooy goo xam ne bu ko nit ki defee day woowal xolam ba du tuub mooy yàlla sax du baax ba abadan waaye nag mooy yàlla gi tane ci nit ki mooy mooy gi nga xam ne bu ko nit ki defee bu noppee day tiit réccu deltuwaat ginnaaw tuub delluwaat ci boromam doonte ne ak mooy baaxul sax waaye mooy googu moo tane waaye nag wa aqbahu ashan maa qassaahu taqsi maqsa taqsiyatan wa taatan an saw mooy yàlla gi yées mooy mooy goo xam ne day wool xolu nit ba noppi di ko di kaska xolam di ko fàttalu yàlla wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi asaanihim waqra suñu borom nee na yonent yàlla Muhammad wa minhum man yastami'u ilayka boo dee waaree ak di jàjje ak di labiri nit ñi am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloog yow dina la xool di diglu wa minhum man yastami'u ilayka waaye nag wa jaalna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu fi afaani waqra suñ borom nee na maa kaste seen nopp ba mënta dégg dégg mënuñoo dégg yiw bi nga xam ne moom ngay wax waaye maa muur seeni xol ba sama leer mënu ca tàbbi ak waar mënta tàbbi ci seeni xol danañu yàlla musal ci loola te lool nag mbokk yi ak mooy yàlla daf koy waral mbokk yi bokk na ci yi ñu war a dundal suñuy waxtu mooy fonk jàng al karim jàng alquran nag du wàcc kenn lu ca nit ki man lum néew néew néew ci Al karim bis bu yàlla sàkk na ko jàng bu fekkoon ne benn isib nga ca man benn isib boobee saa saw xëyee na nga ko jàng ngir waajale ko sa ëllëg bu fekkee ne ñaar nga ci man ñaar yooyee nga ci man waxtu woo bis bu nekk na nga ko jàng ngir waajal ko sa ëllëg bu fekkoon ne sax téere bi mënoo ci lu fer ijji dong ci nga yem nga xam ne da ngay tiim di ijji di boole tiimal téere ba te ijji di boole jàng nañu ci sunna si yonent yàlla muhammad rasulullahi nee na bu nit ki day jàng alquran te bu muy jàng alquran muy ànd ak ab coona ndax alquran yi day ijji ko boole nee na dañ koy fay ñaari yiw ñaari yiw yi mooy lan mooy dañu koy fay yoorub jàng gi waaye dañ koy fay yoonub yoolub coono bi am ngir jàng maanaam nab nabi googu ngay def di nab nabi ngir jàng di ij ak boole coono boobu nga ci jànkonteel dañ la koy fay waaye nag dañ lay fay tiyaabul jàng ci kon nañuy dundal sunuy waxtu ci jàng alquranul karim lu nit di tudd ci aw làmmiñam ci kaw suuf alquran a ci gën cheikhul xadim nee na wa afdalu zikri kitaabullahi maa tadabburi wal intibaahi ndax wa aayatun waahidatun tudubbirat fiiha tafuuqu jumlatan minhu xalat fiiha tafuuqu xatmatan minhu xalat Cheikhul Xadim nee na mboolem lu nit di wax ci kaw suuf alxuraan a ci gën bu fekkee ni nit kan koy settantal di xam maxanaa ak la alxuraan di waare ndax nee na benn ayab alxuraan nga jàng ko seetantal ko xam li ci yàlla wax nga jëli ci waar jëli ci jàjju cheikhul xadim nee na moo gën nga jàng kaamilum alquran ba mu mat sëkk te xamul da téere ba di wax kon jàng alquran dafa war a ànd ak seetantal ngir xam li téere bi di wax bokk yi suñu dund yi nañu fexe mu bañ a sànku wërsëgu suñu borom wi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci kaw suuf nañu fexe ba di ko jeexal ci jaamu yàlla ndax kaw suuf suñu ñu nekk kat mbokk yi amul kenn kuy wërsëgal jaam ñi ko du yàlla lu fi nit lekk mbaa nit naan ko fi ci wërsëgu suñu borom la suñu Seexul Xadim nag neena na fa in takun aakila risqillaahi wa anta fi kulli zamanillahi walam tatub li talabil gufraani mujtahidan fa daaxilu niiraan Cheikhul Xadim ne ne képp koo xam ne ñaa ngi wërsëgoo wërsëgoo yàlla ci kaw suuf te boo lekkee wërsëgu suñ borom yi ba noppi sa jamono jépp da nga koy fam ba li nga lekkoon rees ndax da ngeen faral di ko dégg ci ay nettali ñu ne Cheikhul Xadim laaj na mag ñi bis ne leen ndax xam ngeen lan mooy yàq dugub kenn ku ci nekk wax lam xam nga xam ne loolu la jàpp ne mooy yàq dugub nga xam ne ña ca bari ci ñoom jàpp nañ ne moy togg lu ëpp say soxla jëfandiku ci mu dess nga dem wert ji ko ba ñu noppé mu ne len lol de ak anam la ci yàqu yàqitu dugub waye ëpp na lol bokk na ci ara bokk na ci wërsego wërsego suñ borom ba sa biir fess nga war ko jéxal ci jaamu yalla ba noppi nga dem reesal ko ci mo yalla ba ci mu foro loola mbokk yi dafa bokk ci yàq ci yàq dugub moo tax mu ne képp ko xam yaangi wërsego wërsego suñ borom bi bo noppé da ngay fo ba wërsëg warees nee na te tuuboo jëm ci njëgal wala nga tub li talabal kufraat yi mujj tahidan te farlu ci jaamu sa borom nee na kooka day bu muy tuub fa daaxilu niiraan bu faatoo sawar rek lay tàll mu ne kon nag laa tàkkulan abada risqal ilaah fii kulli xiinin summa taxbudu siwaax moytu leen di lekk wërsëgu suñu borom ci jamono bu nekk bu ngeen noppee dem di jaamu leneen lu dul yàlla nee jaamu leneen lu yàlla nag mooy jël say waxtu nga jeexal ko ca leneen lu yàlla ndax lépp lu nit ki jeexal waxtoom rek loola mooy yàlla ci moom kon nag bal bal aksaril ahmala lillahi ahad miqdaara faqrika yaxaw nii abad Cheikhul Xadim nen bari lal say jaamu yàlla ngir yàlla mi nga xam ne moo la bind kem ni nga xamee ne ni nga soxla woon ndimbalam kem ni nga xamee ne ni nga soxla woon yërmaaneem kem ni nga soxla ni nga xamee ne ni nga soxla woon njëggalam nee na na nga farloo noonu ci jaamu sa borom tabaraka wa taala kon mbokk yi yi ñu yàlla jox ko ko jaamoo ndax ndénkaane la boo xam ne daf ñu ko dénk te bis day ñëw dana ko jël kenn ku nekk ci ñun bu faatoon dana dem ci biir bàmmeel dund fa lu ëpp lu mu doon dund ci kaw suuf te mbokk biir bàmmeel boobu li nga jëfoon ci suuf loolu rek nga fay wër kon mbokk ñu ngi daaneel suñu kàddu ci jaale suñu mbokkum jullit mu génne àdduna di borom xam-xam bu mag muy oustaz Ahmad Ba yàlla nguur yàlla yërëm ko te jégal ko ñu la ku yéeme ci xam-xam ku doyoon waar ci xam-xam nun nag malheureusement suñu réew mi xamuñu xàq borom xam-xam xamuñu dayoo borom xam-xam nit day doon mu diine nekk ci suñ biir di dund ñu di ko sàggane di ko sabantal ba xëy génn àdduna ñu ne dañ koy rendre hommage la nekkoon ci biiram duñ ko jariñoo waaye mbokk yi jëmm ji faat di Oustaz Ahmad Ba nañu xam ne keno bu rëy moom mabbu ci lislaam borom xam-xam bu yaatu woon ab xam-xam te rafetle ko te jékki dayo ci xam-xam man yàlla dogal na mu musuñoo gisee waaye suñu wëllëre la woon daanaa diggante moom téléphone lu bari bari waa waana lu ma daa gëstu bu ma demee ba soxla ci danaa ko woo téléphone mbaa mu yónnee ko message laaj ko ne ko waaw histoire sàngam nangam ak nangam ak nangam lu mu demee mu leeral ma ci la ma ca war a leeral lépp yàlla yàlla yërëm ko ndeysaan waxtu wu nekk mu di ma dikk ne ma danaa ñëw Touba seet si la ba waxtu wu nekk ma di ko dikk ne ko danaa ñëw Ndakaaru seet si la ba li yàlla dogal dogal ma ci moom suñu borom dogal ñu gis waaye suñu wëndal la boo xam ne waxtu bu nekk dañ daa ko moom borom xam-xam ne bu génnee àdduna dañu xam ne monde bépp a faatu dañu wax ne euh, euh, mawtul aalimu mawtul aalam benn borom xam-xam bu faatu dafa mel ni monde bi yëpp ñoo faatu yàlla yàlla yéen a musal ahmad bax Thank you.